am nañu mbégte bu rëy teew fii tey euh, ñamal leen tamit ci li nga xam ni mooy lu bees li ñu génnee di albumu kàkkatar way wii ñu leen dégtal moo tudd dund gi jafe na dund gi jafe na yaakaar naa ni ku nekk rek ak secteur boo mën a nekk yëg nga ko bu baax a baax suñu yàlla defee nag ñuy nday ji séex te njaaxaanaay bokk ci askan wi saytu ba gis lu ni mel muy dëgg ju wér am na nu ngir biral ko ci kaw ngir nos gouvernants bàyyi ci xel waaye noo les aspirants aussi du pouvoir bàyyi ci xel euh, wax dëgg yàlla casquette yu bare laa fi teewe tey ndaxte mbir mi démb la te tey dikkut ku ma xam xam na maag jëmm ji di njaga sekk bi ma tàmbalee dellu sib Sénégal tàmbali suma carrière dafa ñëw jàppale na ma atub yàlla te saa yu weer deewee bu ma tàllee sama loxo mu fel ko lépp rek ngir suuxat rak ngir mu jëm ca kanam kon kooku tey lu mu teg tànkam rek je ne serai pas en reste yàlla tamit def jëmm ji di président Ousmane Sonko yàgg nemmeeku su may way samay contenu chanson di ma ci encouragé di ma ci dooleel fu kenn fekkewut kon ma am taxawaayu frère waaye tamit yëkkati nañuy way yu bare ndax ku ne xam na wayu dénkaane wax nañ ci ni mën nga wóolu doomu aadama ba jox ko donkaasa gi ay jëfam méngoog leneen sa yaakaar tas waaye mën nga wóolu di doomu aadama ba xañ ko donkaasa gi te fekk na moom bu falu woon boo jaaxlee mu jàlle la réew mi di Sénégal nag réew mi di senegal war na noo delloo ci xel yi te xam ni ñu ni nee na ñoo bokk ndey ak baay te lu dagg lu ne moroom ma lay fekk euh, bul yàlla defee ñu jox la réew bul dem mukk ba méngoog li ñuy wax ci googu way naan am na ñi nga xam ni bu nu séddoo ba noppi la ca des dañ cay xëpp suuf ngir mu xajam waaye am na ñi nga xam ni seeni réew a leen tax jóg ak seen askan lépp lu ñuy def ñoo ngi koy suur seen borom te gën nañ ni Ousmane kenn la ci. yàlla na yàlla xeeb dolli yàlla yokk doole ci bépp fànn képp ku jóg ngir Sénégal jëm ca kanam ak noblesse de cœur et d'esprit gëm naa ni lii ñu nekk li ci li nga xam ni moom lañ cay ut mooy ëllëgu Sénégal Sénégal doon gën gi réew kon yàlla na yàlla gunge ba lépp mate jërëjëf.